lan moo waxal lu ni mel ab analyse bu pertinent bu muy amal chaque jour ak ci sujet buñ ci mën a waxtaanee Momar maa ngi lay nuyu di la maa ngi lay fay Kadia di nuyu euh, Omar di nuyu aussi ñi seetaan. Euh, di am kontaan comme toujours rek partagé ak yow plateau bi. mi ngi noonu euh, ci ñaareelu parti bi nag dinañ waxtaanee li nga xam ne itam gannaaw gi ba ñu jugee ci màggal Touba daanaka moom mooy actualité bi gën a saillant jëm ci li nga xam ne euh, moom moo jëm ci ki faatu ci ay anam yoo xam ne ñenn ñi jàpp nañ ne faaw rek ñu indi ci ay leeral mu indiwaat question yi nga xam ne. mooy anam bi ñuy dencee ñi nga xam ne ñoom la caabi te ginnaaw moom moo waxal ñu fi dalal Ibrahima Sall di kanam tuuti lay doon ni ngeen ko xamee euh, laataa ñuy soobu ci waxtaan bi dañuy ñëwaat ak yéen ci lu yéenekaay yi daal di xëyee ci semaine bii di tàggoo laata lool nag ab information boo xam ne de dernière nouvelle la ñu ñuy xamal ni fële ca euh, euh, Yaraax wala chantier plus précisément zone de Hann dafa am benn immeuble boo xam ne dafa daal di daanu ci kaw ay nit actuellement gendarmerie ak ki nga xam ne moom mooy gouverneur bu Dakar mi ngi sur les lieux xool naka la ñuy def ba génnee ñi leen wéyal euh, xibaar boobu daal di leen koy toppal ak rédaction bu 2S TV mi ngi noonu dañuy daal di ñëw ak le quotidien mi nga xam ne nag moom dafa daal di samp ci xëtam bu njëkk li jëm ci wàllu élection locale yi mu mel ni le feu couvre à Benno Bokk Yaakaar lu ni mel euh, fësal mamax waaw muy élection local yi ñu dëgmal nga xam ne du yomb nag ci benn kuréel mhm. du yomb ci Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne moo yoon majorité bi waaye du bokk yomb aussi pour opposition bi li ko waral mooy anam gi ñuy voté bii yoon xam nga bu njëkk ba sax dañ daan def investiture du jur coow léegi ñu voté ba noppi après ña ñuy élire conseiller ñoom ñooy gise seen biir tànn ci ñoom benn maire waaye bii yoon lu tax mbir mi di bëri coow mooy euh, ci investiture yi rek ka ñuy def ca bopp ba leer na ñëpp ni moom mooy doon maire donc tànneef bi laata ñuy tàmbale sax dee leer. loolu nag xam nga bu amee foog mu jur coow ci ki ñuy tànn ak kuñ dul tànn. moo tax ma njort ni même bu fekkee ni président Macky Sall nee na buggul ay ñoñam def ay list parel nañ ko déglu waaye ñàkkul ni bu defee tànneef ba noppi. dinaa am coow yu jur ba nga xam ne am na sax ñu ragal ni Benno Bokk Yaakaar ni ñu lëngoo woon boobu ba léegi 2012 ba léegi nekk benn muy ànd bu yàgg. Mhm. boo moytuwul bii yoon. and bi am jiixi jaaxa ndax lii. mi ngi noonu euh, ñu daal di ñëw ci les échos yéenekaay mi nga xam ne moom nag dafa daal di def ab taxaw seetlu ci cinq mois d' absence au juge premier cabinet mu mel ni jur na coow ci ñi nga xam ne ñoom ñooy détenu yi waaye it avocat yi. waaw bi euh, juge Samba Sall làqoo ba léegi. Mhm. ba ba léegi amuñu ko wutu ñuy ñaan yàlla oyofal suuf ci kawam. amiin waaye amul ku ko wutu ci euh, fi mu nekkoon. Mhm. ba nga xam ni loolu dafa am ay dossiers yu bëri yu muy tardeel Euh, li ko waral nag lu bëri la am na ñenn lu njort ni xëy na dossier ba mu yore woon euh, ba ci la mujj génne àdduna dossier boobu dafa xaw a lalu politique bëri pression ba nga xam ni sax buñ dee tànn nit pour jox ko lu mel noonu ay moomi ki mbokkam mhm. xëy na dina ci am xel ñaar ba nga xam ni tànneef bi yombul defe naa looloo waral mhm. euh, mu am ay njeexital nag ci yeneen dossiers yi nga xam ni laalewul dara ak wàllu politique mhm. te cabinet juge d'instruction ba ko doon instruire comme nekkatu fi dina indi njeexital. Mhm. loolu nag ñuy ñaan yàlla rek balaa yàgg ñu trouver ci solution. Mhm. bu ko defee justice bi mën a dox normalement. Mhm. ci wàllum justice la ñuy defandi ak euh, li nga xam ne moom la ñu fas yéene waxtaanee ci kanam tuuti muy trafic de passeport diplomatique l'état dos au mur lu ni mel la yéenekaay bi daal di fësal. waaw luy ay di jàmbat te lii nag mooy ay mooy jàmbat. muy mbirum passeport diplomatique. lu tax ñu ni bii yoon l'état est dos au mur c'est que am na yu fi daan am sax mhm. lu mel ni kii wala lu ko jege yoo xam ne da daan laal ñu bokk ci nguur gi waaye ñu nëpp nëppal ko mhm. waaye bii moom defe naa nëpp nëppal mu ñu ci nekk parce que dem na ba si ñuy frontière ba am ay retentissement ci le plan international waxuma la sénégalais yi ci boppam yi tëggat yoon pour xool ndax yoon liñ ko yàgg a jiin naan dafa am kumba am ndey ak mhm. kumba amul ndey est-ce que bii yoon dina yor taxawaay bu mucc ayib mais ñenn ca bitim réew sax ñi ngi bàyyi bët Sénégal xool ñoom ba ñu mel nii naka lu ko gouvernement bi di gérer ak naka la ko suñu justice di euh, di gérer. Mhm. benn musiba nag moo gën ñaari musiba. Ah. parce que benn musiba ñu ne ah am na lu xóoru passeport diplomatique waaye état bi def na ci lim ci war a def ba yoon topp na ñi mu war a topp ba daan leen. Mhm. moo gën beneen nag lu xuur topp ci lu xóor boo xam ni lii day am ba pare yoon nag. ya yaafus ci mbir mi hmm. ba nga xam ne seen ñu bëri buñ ci bitim réew dañuy jàpp ni Sénégal yoon bi amul euh, doxul normalement mi ngi noonu réew mi quotidien daal di dellusiwaat ak ñun ci sermon wu Serigne euh, Mountakha waaw mu waxtaan bu am solo bu mu def ci màggal gi jëmale ko nag ci li nga xam ne moo fi actualité euh, benn mooy violence gi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci askan wi violence physique mais violence verbale ci kàddu sax da ngay gis ni ñuy jokkalante kàddu ni mu ñagase muy loo xam ne xamuñu ko woon euh, beneen bi mooy réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi wax dëgg yàlla indi na fi coow lu rëy mm-hmm. parce que niñ koy jëfandikoo méngoowul ak suñuy valeur mm-hmm. te mën na indi ay ci réew mi ay goo xam ni kenn du xam fan lay teere mm-hmm. donc loolu itam yëkkati na ci kàddu gis nga bu yàggul sax président de la république en conseil des ministres joxe na ay instructions pour ñu encadrer usage u réseaux sociaux yi bi ci topp mooy li ñu dëgmal muy élection locale te ñu njorti ni élection yu nara a lay doon mu ñaan ñi nga xam ne ñoo ko fekk muy nguur gi ak ku jegi mhm. ñu dem ci ci jàmm élection yi leer ba lu fa tukkee ñu xam ne moo ci tukkee choix sénégalais yi la mhm. mais réew mi dal mhm. donc yooyu sujet d'actualité daal yi nga xam ne abordé nañ ko ñu ngi ko ci doon xaar te defe naa nag doom nit ñi dinañ ko bàyyi xel ba nga xam ne li mu sàkk surtout ci acteurs politiques yi dinañ ko def li mu sàkk aussi ci sénégalais yi ci ñu moytu réseaux sociaux yi nañ ko def bu ko defee réew mi am dal. mi ngi noonu lu ñu mel euh, yéenekaay yi daal di xëyee ci semaine bi nga xam ne moom moo nekk di euh, tàggatoo ni ñu ko waxee léegi ci partie bu njëkk ci suñu émission dañuy waxtaanee trafic bi nga xam ne moom moo ñeel passeport euh, diplomatique yi waaye itam sur le plan international naka la mën a affecté suñu ay relation ak yeneen i réew yi moo waral ñu dalal ki nga xam ne moom moo nekk Omar Ka laataa ñuy sóobu ci waxtaan bi dañuy ànd ak rédaction bu. 2STV seetaani élément bu ci kumba gisee defal ñu dellu si waat ci plateau bi. tekk tekkaaral parlementaire yu nekkee ci ku jëpp politique bi mu mel ni nag commencé na jaxase bopp yu bëri. gannaaw affaireu trafic passeport diplomatique bi nga xam ne député majorité yi ci lañ ci daal di tuumaal bu ñu sukkandikoo ci kii nga xam ni xam-xamam màcc na ci wàllum politique Abdoulaye Mbow bi lépp tekk tekkaaral dafa daal di ëpp. député yi nga xam ne dañoo bokk su kujje gi àdduñu si mbiru euh, euh, euh, bi nga xam ne dafa soxal trafic de passeport diplomatique lan moo tax ñoom lu ndaw si lu gën a ndaw lii yëkkati nañu kàddu àddu ci jël position wax seen xalaat jël position alerté jël position sensibilisé jël position wax li nga xam ne moo di mbir mi pour sénégalais mën lan moo xew dëgg dëgg dëgg donc bu ñu yegsee bay tudd mbirum passeport te ñu siy tudd ay seen naataango député jàppoon nañu ne wala bokk Sénégal yu bari amaana jàpp waroon nañ mën a jàpp ni député l'opposition bi bokk war nañoo mën a jouer seen rôle maanaam addu si wax ji wax si seen position bàyyi mu déroulé ba yegg si cappaandaw ga est-ce que dañuy yem si ñaar député am nañu koy wax am nañu koy tudd waaye li mën a am ñaar lañ si tudd mu di mbir moo xam ne waruñ